gis nañ beneen joueur di ku Koulibaly. Mhm. nekk parmi vraiment les défenseurs les meilleurs défenseurs au monde. Oui. est-ce que tey jii warul jóge naple dem ci yeneen yeneen yeneen équipe yi. bon euh, léegi c'est à se poser la question euh, dafa na Sadio Kalidou soo ko posé dana ni mais pourquoi mooy jóge Naples d'abord c'est un professionnel su gisee lu ko jar wéy mais du jóge naple pour vouloir quitter Naples c'est un professionnel. Euh, parce que léeg dama naan attention gars yi dañuy liggéey njëriñ moo leen fa bàyyi te nag liggéey la bu gàtt liggéey la bu gàtt ñoom xale yi soo xoolee ñoom ñëpp léegi ñu ngi tourner entre vingt cinq vingt six ans dans cinq ans mu commencé jeex dans cinq ans mu commencé jeex nga war dunde sa desitu dund li nga liggéey ci diggante vingt ans ak trente ans Parce que le footballeur professionnel, il a 10 ans pour gagner la bataille de la vie. 10. 10 ans. Vous voyez 40 ans. Footballeur, 10 ans, c'est entre 20 et 30. À 30 ans, c'est le début de la fin. Donc, moo ko bàyyi foofu mu nekk à Naples. Tant que je fais Ndjarin, je fais fa la nekk ba ñu distinguer que ba ñu distinguer que meilleur défenseur ou un des meilleurs défenseurs au monde la ko fay jële du du yomb léegi su fa waroon jógee di dem feneen fa mu jëm dafay nekk ci instabilité ba ba muy adapté kon Naples pour le moment oui mais du fermer la porte aux autres su gisee njëriñam fu mu nekk dana dem fekk ko fa te xam nga pour que défenseur adapté wu moo gën a yomb attaquant adapté wu empêcher de jouer moo gën a yomb vouloir jouer voilà d'ailleurs pourquoi toujours défenseurs yi dans le monde ñooy battre les records de sélection tous les records de sélection sont battus par les défenseurs ñun ñu am ci lu rare au Sénégal c'est un attaquant qui a battu le record de sélection c'est Henri Camara c'est exceptionnel c'est exceptionnel qu'un attaquant batte le record de sélection Henri Camara c'est exceptionnel cas bi dafa gën a wane méritu Henri attaquant bu battre record de sélection même les chez les défenseurs foo dem dans le monde fooy dégg centenaire rek défenseur la ou gardien de but ou quelqu'un qui joue en défense c'est parce que en défense fa ngay gën a mën a yàgg soo xoolee dans un match ñiy faral di gaañu rarement les défenseurs toujours les attaquants <laughs> ñooy faral di gaañu attaquants yi ñooy faral di gaañu te gaañu boo gaañu rek mi ngi wàññi sa carrière parce que gaañu bi nga gaañu dañ la rattraper ji un jour kon Kalidou Koulibaly fa mu nekk du xëccu pour dem Kalidou du pour dem mais bis bu ñu ko wanee loo xame ni ci la njëriñam nekk mu nekk léegi ci logique bu dem mais gëm naa ni euh, xam nga léegi sax luy intérêt Kalidou keneen jóge fee yokk li ko Naples jox parce que su boobaa Naples dana yokkaat pour garder ko su keneen su fekkee dafa nekk à 90 ci napp am ko indi 100 waaw léegi napp foog mu ñëw 110 pour pour le garder léegi intérêt ci Koulibaly sax mi ngi ci gis ñu ko bëgg jël foofu la intérêt bi nekk moo tax du tëj bunt yi du tëj benn négociation dafay bàyyi ku bëgg négocier ne ñëw mais ku ñëw moom lay liggéeyal parce que bu fekkee ni il est à 100 ki ñëw indi 110 naple pour le gardien dafa yéeg 120. voilà moo tax intérêt mi ngi ci négociation yi bañ a tëj benn bunt mais bu mu fàtte ni njëriñ ko fa bàyyi parce que tubaab du def sentiment bu la téyee rek amal nga ko njëriñ boo ko amalatul njëriñ rek boo yéexee génn sax moom moo lay dàq. alors Krépin Diatta ak Sant Ngom seen sélection lan nga ciy wax. baax na mais léegi da nga waat lu nga xamee ni benn petit débat bu nga xamee ni <laughs> da nga réveillé waat benn petit bu nga xamee ni bu nga xamee ni tëju woon na gis nga suñu U23 yi ñàkk qualifié waaw yi Guinée yi éliminé mm-hmm. euh, dañ leen dimbalewul Krépin fa la war a jouer. Moussa Wagué fa la war a jouer équipe A bi qualifié na ba pare te Crépin dana door Madagascar la preuve fa mu nekk ba mu fay indi boppam gisuñu Crépin équipe bi fi mu nekkoon Crépin nekk fa woon fi mu nekkoon ba indi boppam Crépin nekk fa woon avant équipe bi ñëw contre Madagascar Crépin mënoon na nekk matchu Mali bi mënoon na ci dugg. dem ci moins de 23 ans yi bu demee ci moins de 23 ans yi amuñu woon sax problème de défense pour comme ñu tudd Moussa Wagué bu ñu amoon Crépin dañuy gagné Guinée parce que xam nga Crépin lu mu xaw a nuru ci équipe boobu gisoo Cristiano Ronaldo dafa dem Real fay Cristiano Ronaldo dafa dem Real fay Messi bu demoon Barcelone fay Cristiano Ronaldo bi mu jógee Real la ñuy soog a xam ndekete lan moo doon place am Real di di jëm di jëm génnaat ci ndox Crépin noonu la mel ci équipe bi bu fa nekkoon ñu gagné Guinée je suis sûr Aliou tout seul bu fa nekkoon ñu moo ko gënoon soxla parce que euh, xam nga xam nga lan mooy priorité yow dana am bis bu nga xam ne ci kër gi yow yaay am priorité ci sa papa. xam nga pourquoi da nga am examen 8 war na la fekk buntu classe classe d'examen sa papa paas bi mu daan passé taxi di liggéey yow la koy jox moom jël yi dërëm dërëm xam nga luy dërëm dërëm mooy car rapide yu jëkk yi mooy dërëm dërëm sa papa bis boobu dërëm dërëm lay dugg jox la paasu taxeem parce que tey yaay priorité ci kër gi mais loolu mooy priorité priorité absolue amul la priorité la priorité est à l'événement du jour tey lan moo xew li xew la ñuy accorder priorité alors Crépin oui il a apporté sa verve il a apporté sa jeunesse il a apporté son insouciance insouciance bi moo di lan se faire plaisir yoonam nekkul ci leneen il a été dangereux contre l'adversaire ba 75 minutes loolu mu def contre Madagascar bu ñu ci béyee tuuti ñu gañ a Guinée qualifié 1-0 la war gañ a Guinée 1-0 match retour chez amuñ ko parce que nous avons manqué d'une pièce essentielle ci attelage bi côté boobu d'accorduma ak ñi bañoon bàyyi Crépin ak équipe bu moins de 23 ans yi mook santi nag dañuy apporter une autre touche à l'équipe parce que gis nga équipe bu football comme orchestre équipe bu football orchestre la euh, ci orchestre bi euh, Youssou Ndour Touré di bi may way dafa am instrument bu ma doon dégg moo may wayloo kiy way léeg am na instrument bu muy dégg moo koy wayloo mën na nekk Tama Assane Thiam mën na nekk Battery mbay Dièye mën na nekk ci suuf Euh, li nga xam ni moom la Pape Oumar di def ci guitare bi parce que orchestre ngi noonu euh, euh, ce que fait Santi ce que fait Crépin équipe bi def ko soxla parce que nous avons joué pendant très longtemps sans playmaker playmaker c'est quelqu'un qui monte les ballons en basket en football amuñ ko woon waaw voilà comme Fadiga j'ai toujours di que cette équipe là bu amoon Fadiga valoir un but par mi-temps je l'ai toujours dit li équipe actuelle bi nii xam nga lu mu manqué Fadiga bu daje woon ak Fadiga di dugal un but par mi-temps il y un peu de senti en fatiga senti moom ci touche bi rek il y a un peu de senti tu sens son manque de rythme on a senti le manque de rythme contre le Mali entrain bi dafa des Crépin daf ko gën jeune gën ko insouciant moo tax le Crépin contre Madagascar a été bien meilleur que le Crépin que, que le que le Santy de de de de qui a contre le Mali mais c'est parce que Crépin moo gën a jeune hein ba pare moo gën a insouciant euh, xalaatagul dara Santy a même peur de rater sa sélection dans l'équipe définitive pour aller à la à la CAN loolu yëpp dafay nekk lu koy bloqué léegi reste mu gagner en confiance pour épanouir mais on a besoin de son animation à l'entrejeu on a besoin de ses passes décisives au niveau de l'entrejeu en amont Crépin ak euh, Santy boo ci dee faral di am kenn ci entrejeu du Sénégal parce que Crépin c'est quelqu'un qui porte le ballon et qui l'amène Santy c'est quelqu'un qui le donne tôt Crépin le donne tôt euh, Santy le donne tôt Santy il le ballon là où il faut il joue juste Crépin c'est quelqu'un qui le porte et qui l'amène donc qui pose des problèmes à la défense adverse ñoom ñaar ñëpp baax nañu ci ay registres différents si on les a tous les deux tant mieux liste 23 jours nag li nga ci mën def dafa bare voilà